Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 3 septembre fii ci VIP People TV dañ leen di demal foofu ci assemblée nationale won leen benn compilation de vidéos jëmale ko daal ci li nga xamante ni moo une plénière bi à amaloon démb di altine ñaari fan ci weeru septembre foofa ca biir assemblée nationale ginnaaw nak bi nga xamante ni ay débat yu tendé la woon diggante ñi nga xamante ni député majoritaire yu Benno Bokk député Yewwi Askan Wi ak euh, wàllu ginnaaw loolu dal nañu sétane ay extraits yo xamanteni ni na ay tension ñi dellu ci waat asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu monsieur les ministres et leurs collaborateurs maa ngi leen di nuyu monsieur le président de l'assemblée nationale maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm chers collègues euh, damay commencé par le président de l'assemblée nationale monsieur Amadou maam Diop gëm naa ne yow yaay premier victime fii ci Sénégal ci Pastef lu ñu indi ci dëkk bi fii la député taxaw mu ne ñaari bandi ngeen baal ma ci kàddu gi moo nekk fii ci Sénégal en parlant de président de la République Macky Sall kenn kii mu ngi pale keneen kii mu joxoñ la loolu benn la ñaareel bi fii la député taxaw jaakaarloo ak moroomu baayam li may wax inventé wu ma dara tonton Cheikh Seck yaa ngi nii nga taxaw ci pipitre bii ñu saaga la bàyyi nga ne ko duma musa tontu parce que pupitre bii du pour saaga fii la député buddi ay micro fii la député taxaw ci ay table gëm naa ni nag waa Benno Bokk Yaakaar gàcce ngaalaam kenn ci yéen jaarul fii loolu nag su jàllee wax leen lu am li ngeen dig Mélenchon ko su ngeen amee majorité à l'Assemblée nationale di ngeen di daganal góor jigéen wax leen loolu sénégalais yi mu jeex presse sénégalaise maa ngi leen di delloo njukkal parce que ñoom seen pexe su antu woon Ben presse du taxaw fi tay pour former li ñu li bëgg def mon si jallé aussi ah, pression au conseil ak il y a des cultivateurs qui sont là-bas il y a des éleveurs la patronat xanaa yeen da ngeen xalaat ne ñun député yi wala ñun politique yi rek ñoo moom Sénégal da ngeen di nax seeni bopp suñu ñu jógee ci foofu yéen da ngeen ñëw ngeen yokk dépense président de la république am ñaari soxna ñu yore la yore sa aawo yore sa ñaare seen premier ministre ñëw am ñaari soxna léegi nag monsieur le ministre xam nga ban luwaa nga war a indi fi képp ko am ñaari soxna ci Sénégal benn bii nguuru Sénégal moo la ko war a yoreel indi leen luwaa boobu ñu voté ko fii su ngeen paree ñu door a tas li ñu bëgg a tas ñun nag nekk ay républicain nag bu boobaa nag Guy mari Sagna su ma takkee xëy na di ngeen ma ko yoree nag léegi nag suñu jógee ci loolu ba tey ñoo ngi si rationalisation président de la république Macky Sall moo ko fi njëkkee man maa ngi nii député bu amul oto xanaa da ngeen fekk fii rasonalisation loolu du lu bees indi leen leneen loolu la ñu soxla bu leen nax sénégalais yi wala ngeen dem ci promesse électorale su ngeen demee ci promesse électorale li ngeen promettre woon population bi nag dafa bari ana conseil supérieur de la magistrature président da ngeen ne woon président su gagné du ci bokk wax leen ci loolu ana appel à la candidature bu leen ñu fontoo <laughs> wala léegi lu tax yéen jaaru leen ci roi référendaire comme te yéen da ngeen naan yéen a yore population bi wala 54 pour cent bi amatu fi dafu leen de xam ngeen su ngeen demee élection tey dinañ leen duma ba kon ñu déggandoo extrait boobu nga xamante ni kii di député Racky Diallo moom daal dafa clash bu baax a baax kii nga xamante ni mooy le chef de l' état Bassirou Diomaye Faye ak kii nga xamante ni daal mooy premier ministre am jëmale ko daal ci lii nga xamante ni daal foog nañu urgence la alors que urgence yi ñi ngi feneen foo xamante ni foofu la ko waroon def ñu ci bare nag dañu sukkandiku ci li nga xamante ni daal mooy ay fonds politiques yi nga xamante ni onze milliards moo logé wu foofu ca présidence neuf milliards ca primature muy vingt milliards ëpp lool quinze milliards yi nga xamante xamante ni moom la ñu wax ci HTTC ak CSE ginnaaw loolu nag kalaas nañ ko bu baax a baax mu doonoon benn débat bu tendu boo xamante ni amoon na foofu ci hémicycle ba muy l'honorable député Raki Diallo ginnaaw daal bu mu dalee bu baax a ci kaw ki nga xamante ni le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre. dañuy xooli beneen vidéo bi nga xamante ni kii di Abdoulaye Wilane moom it yëkkati na ay kàddoom foofu ci hémicycle ba ñu dellu si nañ déglu ci Abdoulaye Wilane. depuis le 24 mars.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 nous adopterons votre budget. Nous l'avons prouvé avec Ablaï en 2000. Vous nous demandez de vous autoriser à supprimer. vous, nous demandez de vous autoriser à supprimer, à dissoudre le HCCT et le Haut Conseil, le Conseil environnemental. C'est de l'incohérence. Notre pays siège au niveau des Nations Unies. Aux Nations Unies, il y a le Conseil national environnemental. Dans tous les pays du monde, y compris dans le royaume, il y en a.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 créé CREAS Macky Sall mon leader que j'ai soutenu mais tas na fi Sénat alors monsieur le président tenez en compte Wilan, vous avez la parole Abdoulaye Wilan, continuez Je veux simplement que les Sénégalais et les Sénégalais qui nous suivent retiennent avec vous et moi que le, Haut Conseil des collectivités territoriales doit demeurer. Le Conseil économique, social et environnemental doit demeurer. Je rappelle à ceux qui sont dans PASTEF et qui ont appartenu aux assises, au peuple des assises, qui ont paraffé, signé, assumé, combattu pour la mise en œuvre des conclusions des assises et les recommandations de la CNRI, e qui doivent se retrouver dans leurs petit soulier ou derrière leurs petits doigts. Je termine en disant que ce n'est pas utile ni efficace de casser. Il faut certes réformer. Je veux être moi un réformiste. Si vous nous aviez invités à une réforme, des institutions pour les rendre plus viables, plus supportables, soutenables au point de vue de la dépense publique, vous auriez peut-être obtenu un consensus. Alors, ce n'est pas par la violence qu'on conquiert et exerce le pouvoir. Soyez plus humbles et retenez que la République est d'élégance toute faite en tout lieu et en toutes circonstances. Mes chers collègues, votez pour appuyer la décision de la Commission en rejetant ce, ce projet de loi qui est inutile, dangereux et enfantin. Je vous remercie. Merci kon ñoko ko muy li nga xamanteni Abdoulaye Wilane bok ci parti socialiste Ligatino ko xam le ne que daal moom dafa ubbi le feu jëmele ko dal ci régime bi nga xamanteni régime tàppale la régime la bo xamanteni xamuñu fuñu jëm régime bo xamanteni ci russe lañu nek doga nax askan bi donc lepp lo xamanteni digon nañ ko askan bi amul dara lo xamanteni ñu ngi ko ciy jëfé lu leen neex la def république pastefien lañ fi dal di tek légui ben taafantaloo la ñu bëggoon wut ci kaw proche loolu ci kaw askan bi pour que suñu tassul li nga xamanteni dal moy Haut Conseil des collectivités collectivité territoriale ak CSE euh, pour que ëllëg ñu amaat benen lay bo xamanteni comme nuñ ko defoon beeg ci point ne waaw su ngeen gisee tay ngeen nek ci ndol bi ndaxte li di ñaari institution yi bëggoon na ko supprimer mais aw ma majorité assemblée nationale motax tay ji mënuñu ko kon su ngeen bëggee ma defal leen li ngeen bëgg manam da ngeen may jox majorité assemblée nationale sénégalais yi bu leen dof nak buñ leen nax ñaari yoon lu daara du ci dëgg suñu bëggoon jël li nga xamanteni moy 20 vingt milliards yu nekk palais di fonds commun te ñi ne dafa haram loolu lañuy ñuy supprimer dal di koy teggi té décret kessa mo koy jël en tout cas fois muy Abdoulaye Wilane yo xamanteni ni yo xamanteni yëkëti nako yëkkati ko ci doddu ki nga xamanteni moy le président Bassirou Diomaye Faye ak régime ak son premier ministre. suñ fa jógee dañuy sétti ji ki nga xamanteni moy l'honorable député ki di Cheikh Thioro Mbacké bokk ci parti Pastef momit it yi nga xamanteni yëkëti nako daldi alerter bu baax baax ki di le ministre de la justice Ousmane Diagne pour que mu daldi di ñi nga xamanteni dal dañuy jàpp ni que daal dañoo lekk alalu askan wi dañuy déglu ji Cheikh Thioro. di la wax ni li Sénégal yëpp di xaar ci yow. monsieur le ministre li Sénégal yépp di xaar ci yow diko wax président de la république Bassirou djomay sénégalais yi kontaanuñ sénégalais yi mer nañ sénégalais yi ñaar ak ñett ñoo tok dañ nan yeex gi dossier yi yéex moo leen jaaxal ndax bang-bang gi ak bañ-bañ lu gi du dara luddul di ngeen yeex ci yenn dossier kon japp na lolu war ngeen ko baral ñi nga xamanteni ni ñoo rey suñ 84 personnes yi te ay sénégalais yo xamanteni ni Sénégal yoon mo len may ñu genn manifesté légalement ñu tiiri len ñooñu ñu len ray war nañ ko feñal kon ñoo ko déggandoo ay kàddu yu wuute la ay député du peuple la mais ay député de règlement de compte la ñu fa indi parce que mon mi ngi alerté ministre de la justice pour que mu gaaw ci dossier yi ku mu jom baaraamu tuuma nag du kenn ku dul ki nga xamante ni est-ce que ñu bëgg a réduire li nga xamante ni mooy charge yu état bi muy les réduire les frais des charges publiques de l'état est-ce que c'est cadre yi la ñuy xaar donc ce qui veut dire que ce sont des gens assoiffés de pouvoir egg ci nañu bëgguñu dara lu vengeance te yaakaar naa ni vengeance réglewul réew moom mii di Cheikh Thioro Mbacké yaakaar naa ni

ñii liñ fi def du dëgg du yoon waaye Amadou Mame Diop ñaari at a ngi ngay gérer xaalisu assemblée nationale règlement intérieur ne ñetti weer yu nekk danga ñu war a jox bilan at bu nekk danga ñu war a jox bilan annuel depuis deux ans amul benn député fii bu xam xaalis bi fu muy dugg xanaa gisoo article yooyu xanaa gisoo article yooyu Amadou Mame Diop moo tax bu fekkee Amadou Mame Diop da nga jël sama ñaari collègue naan leen bu leen ma fonton yow ñaari at a ngi yaa ngi ñuy fonton ñaari at a ngi yaa ngi fonton askanu Sénégal ndaxte xaalis bi ñu la dénk taxe ak l'impôt citoyen sénégalais ya donc yaa ngi ñuy fonton ñaari at a ngi kon Guy Marius Sagna moom dafa jam baaraamu tuuma kii di Amadou maam Diop di président assemblée nationale jëmale ko daal ci article règlement intérieur bu assemblée nationale nee na xanaa tey la ko xam ginnaaw nag cautionné wul benn yoon ay nit ñëw ci plénière daal di perturber képp ku perturber ak parti boobu a bokk dañ la war a dàq ci biti waaye Amadou maam Diop tey di dafa bafoué lii di règlement intérieur bi ëpp na ñaari at tey lii nga xamante ne mooy koppar bi nga xamante ne dénk nañ ko assemblée nationale mi ngi koy gérer te ba tey jii indi ci ay leeral toppul benn yoon lii di règlement intérieur bi kon donc du tey lay ñëw pour xam li nga xamante ne mooy réglement intérieur bi su jàppee ni que ñaari député yi di Cheikh Thioro Mbacké ñi ngi leen di fonto moom na jàpp ni que daal di ñaari at mu ngi fonto député yëpp muy ay kaddu Guy Marius Sagna lu waral Guy Marius Sagna daal di yëkkati kàddu yooyu dama bëgg ñu seetaani vidéo bi nga xamante ni moo jur polémique boobu diggante ñaari député Pastef yi ak kii di président assemblée nationale ginnaaw bi ñu ko fekkee fi nga xamante ni mooy présidium moom daal dafa leen ne bu leen ma fonto retournez à votre place mel ni professeur boo xamante ni mi ngi wax ak ñaari élève eh écoutez mettez-vous eh à votre place ça très clair hein eh, eh retournez là-bas là voilà bu leen fonto nag. Je suspends la séance. Je suspends la séance. kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo bi nga xamanteni le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop mer ba futtaleef diggante ñaari député yooyu di Cheikh Thioro Mbacké ginnaaw bi ñu bëgg a perturber li nga xamanteni moy séance plénière bi nga xamanteni ci si lañ doon voter li di loi bi pour daal di supprimer li di Haut Conseil des collectivités territoriales ak Conseil économique environnemental et social mo waral Guy mari Sagna daal di koy tontu né na duma seen morom bu leen ma fonto trop c'est trop dàq na leen fele ginnaw ay militants passifs aussi bi ñu yéegee ci kaw pupitre bi di escander li nga xamanteni moy mooy trou président ki di Diomaye fay ak son premier ministre mu doon ay nit yoo xamante ni dañ leen yónnoon uniquement pour ñu chahuter daal di perturber li nga xamante ni mooy plénière ba tey dañuy desandi foofu ca assemblée générale dem seeti ji l'honorable député bu Benno Bokk Yaakaar di Fanta Sall nekk foofu ca Kungel. moom it nee na lu tax du voté loi bi nañu déglu ji Fanta dellu si. monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu cher collègues honorable député monsieur le ministre man nag sa projet de loi bi du ma ko voté pour plusieurs choses bi ci njëkk mooy nit day am kàddu te gor ca wax ja te gis naa ne. nguur gi fi nekk respecte wuñ seen kàddu dëgg la ñoo ko digoon sénégalais yi waaye foog naa li ñuy diggee yëpp bari na te am na lu ko gën a nekk priorité sele le ministre projet de loi bi bu àndoon ak fonds politique yooyu lu xaraam loolu riba boobu ngeen di dundee te digoon ko sénégalais yi te waxoon ne bu ngeen ñëwee di ngeen ko delloo ci sénégalais yi ma gis na juróom benn weer yi fi toog yépp loolu ngeen di dundee su àndoon ci projet de loi bi dinaa ko voté monsieur le ministre ku ñu nawloowul duñ ko nawloo te foog naa ne seen premier ministre seen premier ministre muy Ousmane Sonko tax na sénégalais yi kenn bëggatul assemblée nationale fu nekk taxaw na fa yàq fa deru assemblée nationale ma jàpp ne assemblée nationale bu bon boobu bu baaxul boobu mu bañee ñëw def déclaration politique générale am Faut que nous projet de loi pour nous voter. Je demande d'évacuer le public, tout le public, tout le monde. Sortez tout le public. Sortez tout le monde. Je demande à tout le monde de quitter les gradins. Asseyez-vous. J'ai la police de la salle. Asseyez-vous. Regardez le règlement intérieur le règlement intérieur me donne ce droit. kon ñoo déggandoo l'honorable député Fanta Sall lu tax du voté lii nga projet de law bi euh, de loi bi pour plusieurs choses nee nit day am kàddu té gor ci wax dañ ndaxte ji fi nek tay dafa may ay yo xamanteni dañ ko yëkkati won jëmele ko won ci ay réformes yu bari yo xamanteni suñu excès dañ koy dindi alors que amna yo xamanteni xamante ñoo leen gëna a té bay ci weewu tank li di fonds spéciaux yi gisunu ben yoon ñu wax ci lepp lo xamanteni ni na ci appel à candidature gisunu ben yoon yo xamanteni def nañ ko lepp lo xamanteni dafa jëmon ci supprimer yenn agence yo xamante Macky Sall da ko tegoon pour ñu classer ay clientèle politique ñom ba tay ji ñu ngi ci lepp lo xamante dafa jëmon ci train de vie li nga xamante moy mooy ministre yi ba tay ji kenn gisul ben salaire ministre bu ñu waji kon donc suñu ñëwee tay di taafantaloo li di Haut Conseil des collectivités territoriales ak li di CSE alors que 20 milliards mi ngi ci diggante présidence ak primature je crois que décret donc moy supprimer lolu suñu tambalé won fofu dina neex rax ci doli ñom ñoo néwon premier projet de loi bi ñi tek manam moy criminaliser lii di gor jigéen alors que bërki dembu lañ fi dalal le plus grand gor jigéen moy Jean-Luc Mélenchon donc je crois que yoyep yëpp suñ ko bolé won ak supprimer li nga xamanteni moy fonds spéciaux yi ak li nga xamanteni moy fonds commun yi je crois que dañ ko voter. mais tay ji góor ci ko wax ja ñom di dafa melni sako ñok ñoo seen kàddu yi nga xamanteni mom lañ diggoon askan bi motax tax rap député fantasal néna du ko voter.